Fatou yoo bul dem bàyyi ma faatu yooy dee dem yóbbu ma Fatou yoo yow taaru nga Fatou yoo sama xarit nga Fatou fay fay fay fay ma ne Fatou yow mi sama waay nga Fatou yoo Fatou booy dem yóbbu ma faatu yoo bul dem bàyyi ma Fatou yoo yow taaru nga Fatou yoo yow saarit nga faatu yoo bul dem bàyyi ma Butumbele, butumbele, butumbele, butumbele, butumbele, butumbele, ayayo sega, ayayo a, butumbele, ayayo sega, ayayo a, butumbele, watu yo, buldambaima, fatu yo, boy dem yo buma. faatu Faye Faye Faye Faye Fatou nee ma Fatou sama waay nga Fatou yoo Fatou Fatou yoo dama toggal sa ñam na ma sañam bi neex na neegu Gambia butumbele butumbele butumbele butumbele butumbele butumbele eyayu sega eyayu as butumbele eyayu sega eyayu as butumbele